Rewmi 24 TV. dal leen ak euh, jàmm ci xibaar samedi 13 avril 2024 mbir bu doy waar nag moom moo xew ginnaaw rek ba ñu jàllalee information di wax na rek lii di mburu mi daal dinañ koy jële ci 175 indi ko ci 125 mu doon information boo xam ne ñu bari ci askan bi rek daal di nañuy kontaan lool mu mel ne nag loolee daal dinañ koy weddi xibaar yu wér ñoo ngi wax ne rek loolu ma nga jógee ci RFI ci RFI ba mu koy def depuis deux mille vingt et la woon publication boobu mu mel ne moom la ñu jëlaat dugal ko mu mel ne deux mille vingt quatre loolee waral sax ñu bari bari daal di jàllale bi lee information waaye mu mel ne boobee information nag wérul ci gouvernement bu bees bi nga xamante ne rek ñoom ñooy door a samp mu mel ne kon loolee daal di lañ koy weddi di wax ne kon loolu ki yoguñ ko ndax kat nguur mi balaa ñu koo wàññi. foog rek ñu toogal ak ñi nga xamante ne ñoo ko seq ñu door koo mën a wàññi waaye mburu bi kon ku ne xam ne ne cent vingt cinq lañ ko waroon a def jëlee ko ci cent soixante quinze kon information boobu werul